Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. voilà mbokk yi ñu ngi ak euh, Massata mu ànd ak tey euh, Lac de Guiers gis ngeen euh, mu ñëw gunge ko ñu bàyyi ko mu ne mbokk téléspectateur salaamaaleykum Massata. Cheikh bi maa ngi lay di la fay di la jox sa wàccuwaay. ñu gis ni tey ànd nga ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers mën nañoo xam lu ko waral. waaw li ko waral mooy suñu papa Gaston moo soxla. Mhm. ñëpp xamoon nañ digganteem ak Lac de Guiers ni mu meloon fan yi mhm. am coow mhm. te Gaston di suñu papa di suñu lépp tamit mhm. kon suñu gisee lu mel nii mu nar a am coow wala dara dañ ciy gis wasu ci àq comme que Lac de ñu ne ñoo dëkk ak moom mën a waxtaan ak moom pour lii ñoo ëmm seen ku ne am loo yóbbu sa kër rek parce que ku ne xam na dëkk bi fi mu toll metti na ne xam na li fi jaar loo kon nag loo mën a def rek ba lu waaye mën a am lim yóbbu ci këram la loolu rek moo ñu tax a jug du leneen ñu gis nii mën nañoo wax ne impliqué wu ngeen mën nañoo wax ci combat waa géejuwaay gis nañu Balla Gaye la jegeen ñëw aussi ngeen uufoo mën nañoo wax cent pour cent géejuwaay bi dafa gën tey la gën a dëgër waaw xam nga nit ki moom booy def dara da koy njëkk fa nga dëkk bay sa wayu tànk mënoo dëkk géejawaay bañ waa géejawaay ndax lu mën a xew ñoom la ñu ne ñoom ñoo dëkk mhm. ñun ñu amee dara ñoom dañuy jug kon ñoom suñu amee dara dinañ jug xelal leen luñ leen mën a xelal ñu xelal leen waxtaan ak ñoom loolu la rek mais du leneen. Euh, Lac de Guiers bëri woon ak ki nga xamante ne moom mooy Eumeu seen ñaari yoon bii di troisième fois mën nañoo yaakaar ni euh, combat bi dana xaw a wuute c'est-à-dire Lac de Guiers ñëw wane beneen xarkanam ba am ci ndam. revanche moom du yomb. nit ki bu la daanee da ngay jéem a fayu kala daan tamit day bëgg a ni maa la man moo tax revanche moom benn yomb ci mais am ngeen ci yaakaar da nga ndax lat am na ci yaakaar ndax lat mooy bëri cent pour cent la xam nga cent pour cent tamit man dama am fu ma yem man nee naa facilitateur la loolu moo fi indi mais du leneen waaw vraiment moo tax mbir da nga xam daal fi ngay yem waaw ñu gis aussi ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye ak Bombardier tamit di revanche nan nga gisee xeetu revanche yooyu taxaw. waa xam nga lam moom chaque jour nit ne sóoraale aller retour la nit ki moom soo ko daanee ne la wóor wóoral yàlla bis dina ñëw dina bëgg a fayu loolu rek moo ñëwaat xam nga ki daan day bëgg a fayu que lay tamit day bëgg a wan ni maa la mënoon kii nee ndax bi nga may daan damaa wérul woon kii ni ko nag boo wéree ci laa la gën a mën a daan kon moo tax làmb ji di yomb. lan ngay wax fan sa euh, waa Géejuwaay parce que ñoo bokk fan sa que ça soit Balla Gaye Lac de ak ñëpp. man daal li ma leen di wax mooy nañu yaru te dal te ànd ak seen sago xam ne lii sport la ñaari doomu réew ñoo koy def mhm. ndam li mënuñoo fexe ba du génn Sénégal buñ paree fii dañuy fowandante ree di demlante mhm. làmb affaire sport la rek man daal loolu laa leen di conseillé nañ dal te ànd ak seen sago. daal di taxawal euh, ay combat donte ne ay web TV lañu mais aussi ñu ngi xool loo xamante ne aussi comme ni nga koy waxee day yokk làmb ñu daal di ko taxaw nan nga gis. baax loolu da ngeen a topp ci seen euh, papay yi euh, télévision yi rek 2S tëgg na fi làmb ay te tëgg na fi làmb ñeneen tëgg nañ fi làmb su ngeen jëlee yoonu dama leen di encouragé di leen félicité di leen ñaanal yal na leen yàlla jàppale ci seen. Euh, li ngeen di liggéey jàppale leen nit ci làmb ji ngeen dugg si. amiin amiin yàlla jàppale. ñu gis ni euh, gannaaw bi nga xamante ne waxtaan am na ci diggante euh, ñaari kaay c'est-à-dire Gaston Production ak Lac de yàlla def ni tey ñu war a officialiser combat bi ndax ça a été un peu compliqué wala. non non lu compliqué amu fi. làmb na dafa ànd ak coow. Hmm. mbër yi samay doom la ñu. Hmm. Lac sama doom la xam na ko ko dama mbaam yëpp maa ko tëgg. ca sa biir kër sax xale yi léeg-léeg ñu fippu nag man dama bëgg xale buy fippu parce que loolu ci démocratie la bok sa biir kër sax soo ko moomee it say doom danoo war am droit à la parole droit boobu la lak am am na lu ko naqari yoon mu dévoulé wu wax ko ma kontaan ci lool et puis gis nga nu léegi ni nu mel man moom sama doom la moom y a aucun problème nit ñi nag dañuy bañ ku dévoulé wu ku dévoulé wu rek ñu ni dafa mer wala dafay xeex ñoom xeexul lak sama doomam ma laajte comme mbëri yëpp it sama doom la. ma laajte sànq Père Ali mu ne euh, gas dafa yéegal dafa yéeg dafa yokk loxoom ñun ñu wàccee wàccee. suñu loxo waaw yooyu yooyu yëpp Ali man na koo wax moom man euh, euh, jubóo nañ daal jubóo nañ voilà loolu am importance. Mm. ñu gis ni aussi gis nga indi na Modou Anta ak ki nga xamante ne moom mooy Diène aussi combat bu âpre parce que bu ñu xalaatee affiche boobu rek nan ngeen def ba taxawal. waaw boobu it amateurs yi ko bëgg ah. Mm. làmb ji bëgg ko ma dégg ñëpp bëgg ko. bon ñoom ñaarit ñuy sama doom xam nga ko xam booy kay rek xam sama diggante moom kon doomam sama doom la mu du ànd koo xam ni daanaka su duggee Dakar maa ko dugal mu dëkk Thiès nekk xale bu yaru moom itam ñuy ñaari xale yoom avenir bon amateurs yi bëgg noonu ko ñu boole leen ñu gis ni pratiquement combat yi gën a neex wala combat yi gars yi yokkamti woon macha allah yàlla def na ni nga taxawal ko ren est-ce que mën nañoo euh, xalaat ni comme ni nga tàmm di defal làmb ay demi-finale indirectement c'est-à-dire est-ce que mën nañoo séntu ëllëg ci diggante Balla Gaye euh, Balla Gaye euh, il s'appelle comment encore Balla Gaye euh, Mood non non Balla Gaye kii moo taxaw Balla Gaye Bombardier ak ki nga xamante ne moom mooy Eumeu seen Lac de Guiers ku ci génn est-ce que croisé surtout Balla Gaye ak Eumeu Sène bi ñuy yàkkamti revanche boobu. waaw ah, mais kenn du jiitu yàlla ci bëgg-bëggam yàlla mooy dogal su ko yàlla dogalee rek dana am xam nga yàlla dogal Gaston dellu si su ko yàlla nattul woon pour bu dellu si yaakaarul woon damay dellu si donc euh, nan nan ñaan yàlla rek. mais daal pas à exclure. Euh, euh, lu ñuy exclure amul ci àddina. Mm. yàlla mooy dogal lépp. mën nañoo wax ni fu mu toll nii affiche yu mag yi jeex na. dara jeexul parce que dañuy bëree ca lëg sa ñu libéral te promoteur yaa ngi fi yàlla nan leen yàlla may kattan gunu gunu tëggee combat yi nit ñi bëgg parce que combat yi yëpp a neex fii xëy na mbër yu mag fi am mais combat yi yëpp a neex. yi ngeen di tëgg yéen. dara dàq ko. merci beaucoup félicitations ñu gis euh, la fois passée sax gisoon nañu Balla Gaye 2 Gris euh, bala gay Gaye 2 Bombardier. Mhm. tey ñu xëyati dégg ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers numéro 2 Eumeu Sène combat pour troisième fois Diène Kaïré Modou Anta mu mel ni loolu lépp buy am ci Gaston Production dañ lay gis gis Laat Ndiaye. Mhm. waaw jërëjëf euh, temps yi coow li bari woon na. waaw rawatina diggante Gaston ak ki nga xam ni moom mooy Lac de waaw mais coow li coow li euh, je pense que li nga xam ne moom moo ko aggravé mooy xëy na di waxante à travers la presse par presse interposée te loolu du lu nga xamante ni nii jaadu na ci ñu nga xam ne dañuy jëflante parce que tey employeur mooy promoteur employé moom mooy mbër kon lu ñuy jëflante rek war na bañ a euh, génn ci biti ba keroog muy sotti mais comme li ñuy wax rek coow li moom moo bëri mais réeroo amul parce que bi ñu waxtaanee ak Lac de Guiers Abdoulaye Ndiaye mi wax na ci man wax naa si am na ñeneen ku ci mel ni Père Bekaay Mbaye wax na ci ba nga xam ne dem nañu ba trouver un consensus pour que Lac de Guiers nangu bëre ak ki nga xam ne moom moo di euh, tey Eumeu Sène parce que Eumeu Sène du woon problème Lac de Guiers moo doon problème bi te problème bi li ko indi woon mooy li coow li jub ba public bi yëpp jot ci bu fekkoon ni tey Lac de Guiers kuy ñëg la xëy na dina ñëg bu fekkoon ni Gaston kuy ñëg la moom it dina ñëg mais ñoom ñaar ñëpp dafa am cër bu ñu am ci ñoom ñu waxtaan ak ñoom ba concilier leen en douceur ba tey ñu war a euh, paraphé le contrat bi war a dox diggante Lac de Guiers ak ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène pour la troisième fois daje woon nañu daje bu njëkk il y a ans ñu match nul ñu dajewaat boobaax léegi ça fait huit ans euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Eumeu Sène am ndam ci kaw Lac de Guiers Lac de Guiers aussi victoire la bu nga xam ne ba léegi sax dafay jàpp ni dese naa leer ci moom donc mu nekk la clarification wala boog la confirmation en tout cas combat bu nar a neex lay doon ci seen diggante ñoom ñaar l'un dans l'autre Gaston également xam ngeen ni ba léegi ci euh, jàppandalu Abdoulaat parce que Abdoulaat dafa bari ay pax moom tamit dafa xam mbër yi tey dafa doy waar euh, fi muy dugg ñun duñu fa dugg lu muy lijjanti ñun duñu ko lijjanti famille demit ñun duñu fa dem moo tax euh, bi nga xamante ni nii loolu féete na bor Gaston Ñambaas ci Modou Anta ak Diène Diouf Kayre loolu également nekk combat bu nar a neex parce que défi la combat de jeune la combat bu combat la bu nga xamante ni kenn ku nekk ci ñoom am na lu mu la mën a indil rawatina Diène Diouf Kairé parce que tey bu ñuy wax euh, mën nañu jàpp ni Modou Anta moo raw Diène Diouf ci ci ci làmb mais tey làmb tëddee na nu nga xamante ni ni boo fi nekkee di calculer ay adversaire mën nga fi lamb mhm. euh, te at yi du la fi xaar doole ji du la fi xaar mhm. moo tax il a trouvé que ni Diène def na son chemin wane na boppam war na bëre ak moom waxaale bi yàggul ñu juboo mbokk yi ñu ngi ki nga xamante ne moom mooy Abdou Lahat l'international laa ko mën a waxee Abdou Lahat <laughs> Abdou allah Abdou euh, ñu gis la aussi ci wetu gas ñu dégg ni facilité nga macha allah boog nga suñu dugal sa loxo ba combat yu bëri faci euh, mu taxaw. Mhm. comme ni nga koy faral di defee ci yeneen promoteurs yi. Mhm. mën nañoo wax lan moo la indi euh, ci Gaston production. mais Gaston production retour bi mu def nii képp ku mu contacté bëgg nga ànd ak moom war nga ko jàppale. Hmm. Gaston jàppale ko ñun intérêt làmb bu dee moo ñu ñor fu mu nekk dañ ko war a fekk bu ñu wooyee ci li muy def dañ ko war a jàppale parce que ñaar ndijaay la papa la xarit la am di jàmm la def lu na ci làmb ñoom Ali ay ñoom màngo yi moo leen doon tëgg ñoom Lac de ñi moo leen fekk ci ay jeunesse jële leen ci ay dugg leen ci ay tournoi génn leen donc bi muy ñëw retour gagnant la def fekkul ci làmb ji dara fekkul benn ténor am combat donc kooku bu dellu see ñëw daal di jël Eumeu Sène booleel la ko Lac de Guiers ñu ni déet waaye nga ni Bombardier Balla Gaye numéro 2 ñu ni déet nga ni Diène kayre dama koy jël boole ko Modou Anta ñu ni déet ak am na yeneen surprise ñu war a def kooku donc te dama jàpp ni bu ma leen gisee yéen presse xam naa ne kontaan ngeen ah parce que xam ngeen ne vraiment liggéey na donc nag loolu la ñuy ñaan sa lamb jotaat boppam te moo rek marketing la donc boo xoolee presse bi fu ubbi da ngay seen Gaston mm. donc lañ manqué woon un mën na xeex ba xeexjotee da koy def bu défendre ay intérêt jotee da koy défendre mat na avocat pour làmb ji donc ku mel noonu tey boo ko amee muy dellu siwaat defal la lim na defal donc ñëpp a ko war a soutenir boo bëgg làmb yokk waaw mu ngoog rawatina nag ñun bu ñu yàlla defee boole ñoog moom ñu ànd ak moom di liggéey ah, kooku malgré expérience bu ndaw bi ñu am yokk suñu expérience la parce que Gaston donc c'est le Don King de l'arène def na lu ne ci lamb boo doon génne ay image di ko def dimanche bu ne di nga am loo def waaw <laughs> xam naa temps bi xoj nañu mais nan nga gisee euh, Equivox ni mu ñëwee taxawal yenn affiche yi Tyson 2. Euh, euh, xar voilà Tyson 2 franc combat yi. taxaw Equivox def naa ci benn waxtaan ci 2STV mm-hmm. ñun lu yokk lamb rek la ñu bëgg mm-hmm. Equivox ak ñu mel ni moom dañu war a yokk def na li mu a def. tëgg na làmb ju neex Franc Tyson 2 jarul laaj bëgg a bëre bañ bëree Mama Lamine Garga 2 boobu combat indi ay étincelle la donc ñëwuñu di làmbatu ànd nañu ak ay connaisseur donc am nañu ginnaaw ku dëgër làmb yooyu cuune du ko tëgg donc ñu ñaan yàlla yàlla may leen ñu a am dat yu baax jël seen temps parce que lamb ju mel noonu tam boo ko tëggee mhm. ba mu egsi fii bu ko tëgg ci ay jour ouvre ouvrable da nga koy tëgg ci ay weekend mhm. boo mënee am dimanche nag lu la jaral na jël sa temps nga togg ba mu ñor mhm. jox ko amateur yi mu doon événement parce que loolu dimanche daal mooy ooru lamb nañ def le tu ba am dimanche bu baax tëgg ko fi te bañ yàkkamti gis nañu aussi nga indi ay combat yoo xamante ne keroog rek nga def doon def face to face ki nga xamante ne moom mooy gan gone euh, jàmm gën bi Liss euh, Ndiago Liss Ndiago ak euh, boy boy loolu dañuy defar grille de Abdou Diouf dama daaw la woon ñu waroon bëre ñu jël Jackson boole ko Naaru Sogaas jël Luis njaago teg ko ci boole ko ak caatu rëbës jëlaat Mathieu Preira bu waalo boolewaat ko ak xale bi nga xam ni euh, mooy toujours prêt bu olympique de Ngor buñ fa paree pare wuñu aussi jëlaat nañu xale bi nga xamante ni euh, général Kayre bi bëri woon ak Luis Ndiago Kayre aussi dañ ko jël boole ko ak gaucher bu jëf soog nekk yooyu yëpp ci jour boobu lay am ci kàttanu yàlla te pareegu leen renforcé galaal mag nga xam ni bëre parce que tamit il faut ñu xool les jeunes espoirs am na xale yoo xam ne ci seen génération ñooy Balla Gaye am ñoom seen génération ñooy Modou Lo yooyu nag la ñuy sélectionné def ko bu le jour ji boo ñëwee rek sax sa loxo. nga tàmmal amateurs yi saa yoo organiser événement wala sa accompagner promoteur def événement di nga def ambiance c'est-à-dire di nga am benn artiste xamante ne dana yëngal stade bi mbëri dañuy yëngal fii amateurs yi di béggee aussi ci artistes yi nga xamante ne dañ leen di invité est-ce que mën nañoo xaar ne arène nationale aussi nga di nga toj arène nationale. waaw mais ci kàttanu li ñu bëgg. innovation parce que tamit damay wax ni loo nekk cinq ans man football laa jëkk def hmm. loo def ans dix ans hmm. mënoo dara bàyyi ko fa seet leneen donc innovation mi ci duñ ci tayal duñ ci nay hmm. donc ñu ànd ak sunu xarit sunu frère muy Dieye production liggéey li war a liggéey bari ay Baba Diaw gis nga Coen sa double moteur soq gàmmu Guèye gis nga aussi nga dem gis Habib Lecran mu ñëw Soko Sim Serigne Ndiaye 2 Mohamed Diop Youssou Ndour ah nga jël ko tamit boole ko bébé Diouldé et tant d'autres bari na yu ñu war a def donc affaire yaa nga fa. bëgg na woon yëpp incha allah atum ren yaakaar naa lamb dana dekki. non na parce que tey jii bu ñu ubbee rek jàppal ne six mois yëpp day taxaw. ku parewul di nga xaar waaye ko pare di nga